aus billahi min aseytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiimi barkeb sëñ sant yàlla asa wa jàlla way wa jàlla way waaj yàlla solleeri ma sant yàlla asa wa jalla way waaj zolleeri mbàkke sigil maamam ci tooli lislaam kaweel nga ay jaam doy nga nu mbàkke sigil maamam ci tooli lislaam kaweel nga ay jaam doy nga nu mbàkke xam nga lu raw xel am nga lu raw xel raaya ba tuutul sigil na mbàkke xam nga lu raw xel am nga lu raw xel raaya ba tuutul sigil na mbàkke sëñ Sidi mooy mbar mu sedd ay kër ay saadix la daaxir kenn la mbàkke woyof na ci gët diis gan ci wet baatin ba moosut gaayooya mbàkke woyof na ci gët diis gan ci wet baatin ba moosut gaayooya mbàkke sëriñ Sidi Mbàkkem sëriñ Abdul Asiis maasam amul tey ci diine mooy roy yonen ba mooy fay ciy sang mbàkke sëriñ moo tax nun sant nan sax ba faw ñuy wax jaajëfe mbàkke sëriñ Sidi moo tax nun sant nan sax ba faw ñuy wax jaajëfe Mbàkke sëriñ si di yow kenn nga yaaraw ba ñu yow ramunu Mbàkke sëñ si di yow kenn yaaraw ba ñu yow ramunu Mbàkke sigil te daagu yow raw nga fépp taxul nga bàkku yow sang mbàkke sigil te daagu yow raw nga fépp taxul nga bàkku yow sang mbàkke faqir ya miskin ya daa baayo ya jooy ñooy sant Mbàkke faqir ya daa jooy miskin ya jooy baayo ya jooy ñooy sant Mbàkke sëriñ si nun sant nan sax ba fa u ñuy wax jaajëfe mbàkke sëriñ sidi mbàkkem si abdul aziz baara rusloo na seytaane lambu jamoo daan feppeewi diiwaan yow sang mbàkke rusloo na seytaane lambu jamoo daan ca peewi diiwaan yow sang mbakke sëñ si di jar jox bakkan yaa xam lu baax xam lu dagan say ndaba fees neex sa kan sóoral nga gaay jébbulu sëriñ si di mbàkkam si Abdul Aziz Baara sëñ si di jar jox bakkan yaa xam lu baax xam lu dagan say na ba fees te neex sa kan sóoral nga gaay jébbulu yaa man file yaa man fële yaa man ku gaaw man ku tële yaa war a woo te yaa man file yaa man fële yaa man kile yaa man kele yaa man ku gaaw man ku tele yaa war a woote jébbulu sëriñ Sidi Mbàkke lislaam nga ju xam tira lim ña boo ko tuddul desal nga yàlla ko tànnal ceme yonen baak muhammadu lamin baara maamam wàcce duniyaa boole kook Seex Abdu baara sëriñ Siidi moo jëbal léppa mbaayam ba sëriñ moo jëbal léppa mbaayam ba lu am jox na ko Seex baara ba mu ko noppee gis ba a gis def na Seex Abdu Karim muy baayam ba lu masa am jox na ko Seex Abdul Karim li a tax ku nekk war a jug gëstu yi mbiram ngir mën a roy ci moom balaq ngërëm bu ngeen ma digloo tey ma taarixal leen dundam gu barkel gi ngir mu soññinu jàmbaari lislaam la dis muñ ci yaatu lewet sëriñ siidi yaakaari ñépp la dogantu doo gënale jàmbaari lislaam nga yaa dis muñ ci yaatu lewet yaakaari ñépp nga dogantu doo gënale gaynde la jur gu lewet Seex Abdu Asiis mus la fàddu dul yite ki soxla ki jaaxle kooka moo bari may li a tax nga mel nii nga mel ngir ku ko moy jukkoom yu rëy ya nga boole koog bari may sëñ Sidi yaa yaatu yaa mën muñ yaa noppi yaa bari jom sëriñ Baara toggu jox sëñ Abdou Aziz mu jox la ngay danale wexoon na yoo soxoro doo war tey jafe woo ñàkkoo xoram ñaawuloo doo maas bañi tëkkale yow yaa di ab sang sëriñ Siidi Mbàkke yow yaa ab sang sëriñ Siidi Mbàkke yaa dis xam tiraanga te xër tawfeex nga yaatu nga sell nga yaa baax ni ngay doxale yow kër gu sedd nga neex meññet te door ak itam tawfeex nga yaatu nga sell nga yaa baax ci waaju tele am jom ak amam lu jom daa bokkul sëriñ siidi nii nga mel daa yombul du jëf lu du ko wax xeebuli mbokkam itam yow mënulaa jëf lu sew doot noo ko fii du samaam ngi sëriñ baaraak ak sa baay balan na soroon yow yaa ko matal ci yàlla mën a berale sëriñ si di tewer képp ku ñëw fekk la fii te buy demit bàyyi la fii amin ci barke maam baara sëriñ si di yàggal te wér képp ku ñëw fekk la fii te buy demit bàyyi la fii amin ci barke maam baara nun doo nga yàllal wér a gi yàllal wér a te gudd fan ànd sawar amin ci barke maam baara amin ma wax ko saa way wi xatmu ko ngir sëriñ siidi mbàkki jëfam waxtaxul ma jeel ko amiin ma wax ko tëj saa way wi xatmu ngir sëriñ siidi mbàkki jëfam waxtaxul ma jeel ko subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoona wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin barki sëñ Baara